بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نحمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بركة سيرين فلو بوك جوليت gannaaw xasbala ak basmala noo ngi xamdala di wéeru ci xawxala te julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leen xamal ne tey noo ngi indi téere boo xam ne mbokkum jullit moo ko liggéey tudde ko xurratul ayni fi tamyiisi baxdi faraa'idil ayni wala kitaabu tafsiiril manaafi'i fi tawdiihi baxdi sunani nabii saafi'i kenn ci bokki jullit yi moo ko dajale fii leeral ko ci waxi wolof ngir bëgg jullit bu ne man cee jariñu ngir yàlla lu mu ci indi lu wér la te fu wóor la ko jële yàlla na ko yàlla nangu te may nu mujj rafet amiin noo ngi ñaan sababu liggéey bii doon texeeg suñuy way jur ak sunu bokki jullit yépp ci barke Sëriñ Fallu kon noo ngi tàmbali téere bi ci xatum ñaareel bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman gannaaw bi nu santee yàlla ci ni mu gën a ware julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama na mu gën a selle noon di jubloo dajale fii yoo xam ne mukallaf mu ne war na leen a ràññee nu tàmbalee ko ci wéetal yàlla xamle ne yàlla am na te moom rek moo di buur ak xamle ci ay xàqam loo xam ne mukallaf mu ne war na koo xam nu gëm loolu boole ci gëm bés pénc ba ak malaaka yi ak téere yi yàlla wàcc ci yonent yi ak dogal bi ak gëm yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak mboolem yonent yi ak xamle yi nga xam ne mukallaf mu ne moo ko war a defal boppam ak ni mu koy defee lu mel ni julli ak laat ak xaj ak asaka ak koor ak seeni farata ak seeni sunna ak yi leen di yàq ak yenn farata yi nga xam ne bu ko ñenn defee mu wàcc ñëpp bu ko ñëpp bàyyee bàkkaar ba matale ñëpp nit ci sang ku faatu ak jullee ko ak suul ko ak yi ñu deme ak yenn sunna yi ñu feddli yi nit ci witar ak julli ci ayit yi ak xeeti naafila yu bari ak yu bari yu ñu sopp lu mel ni denc ak yi ci aju deme ni fase ak ida ak yeneen ak ni ñuy fase ab sëy ak li ñuy defal ku ëmb ak ku jàpp ak ku yaradal ak kuy wacc ak ni ñuy tudde ak li ñuy defal kuy nàmp ak taral ak ñaani gone ak li ñu koy defal ba ba muy màgg ak ku wére di ni ñuy fajoo ak xaraf ak rendi ak tëbaski ak xeeti ñam yi ñu bañ ku ko leblente ak yi ñu bañ ku ca ëpplante ak li war diggante nit ak mbokkam jullitam mu mu dëkkal ak li ñu sopp ci ku tawat ba ñu naagu ak dundam li mu war a def ak nuyoo ak yéemu weer ak xeeti njariñ yu bari lu mel ni ñaani yenn bis yi ci at mi ak yenn sabab yi nga xam ne yàlla da leen a lëkkaleeg yenn dogal yi lu deme ni liy tax a deeyaale ak gëm akum safaanam ak liy sabab am koom akum safaanam ak liy sabab gudd fan ak wér-gi-yaram ak tudd yenn bis yi nga xam ne dañoo fatt ci yenn biir ak leeral li ñu sopp ku koy jàngi alxuraan ak tudd yàlla ak sàkk sarax ak yenn naafilay ayu bés ji ak weeru koor ak julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ak xamle waru tuub ak nelaw tuub ak xamle jeexu adduna ak tegtal yu bari yoo xam ne lenn lu ci waay def ñu jéggal ko bàkkaaram yu jëkk ak yu mujj lii moom la ñu jubloo dajale fii ci ak gàttal ñuulale ko weex weex yii lu ñu ci indi nag bu dee lu amuk wóote it danoo seet lañu ca gën a daaral rek mu andi ko lu ñu ci indi lépp nag noo ngi ñaan yàlla mu dimbali ñu ci defe ko ni nu ko waxee te mu nangul nu ko te may nu mujj bu rafet amin allahumma sabbitna ala diinika al islaami wahfasku alayna fi xayaatina wa xinda mamaatina wa baxda wafaatina wa ahtina asdaqa al iraadati wa ahsana al tawakkuli wa libaaxa al taqwa wa tuula xumri fi xusni amalin wa saati risqin wa sihati al badani wa xusna al xaatimati wa saadata al daarayni maha kifaayati hamayhima wa duxool al jannati bi xayri xisaabin amin ya rabbal alamin i'lam أيها المطالع أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا خال في خده لو خير هذا لكان أحسن ولو شيد هذا لكان يستحسن ولو خدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو الدليل على استيلاء النقص على جملة البشر bismillahi rahmaani rahim noo ngi toll ci xëtum juróomeel laa ilaha illa allah yàlla suñu borom bi moom rek moo di buur nguuram bi digaalim ko kenn lu ko neex mu am lu ko neexul du am kenn du ko dimbali ci dara lu am moo ko amal lu ñàkk moo ko ñàkkal du diisoo kenn du tàggu kenn coobareem rek lay jëfe ci lu ne ak kàttan ak boppam ak xam-xamu boppam ak sañ-sañu boppam aajowul jëm ci kenn te ku ne aajowul jëm ci moom mi ngi dund dund bu tàmbalewul fenn yemul fenn dana dégg dana gis dana wax waaye yooyu yëpp niróoliwu ko mbindéef daraam niróowul ak daray mbindéef lépp lu nit mën a xalam ci am xelam wala mu melal ko ci am xelam wala ci aw làmmiñam daray suñu boroom juróomu leen loola jurul kenn kenn juru ko kenn du mbokkam ku nekk ab jaam nga lu waay baax baax ab njaamam nga rek xam na lu ne umpulewul dara teewe na lu ne wutewul dara lu waay wéet wéet mi ngi fi yow te loo def gis na ko xam na ko bind na ko te du ko fàtte te dama la ko teyit loo waxit noonu lu nit bari bari ak seeni coow kenn ku ne xam na la nekk ci sam xel te kenn ku ne da nga mës a wéet ak moom ba defee yow rek la bind amal ba nu amagul moo nuy dundal bi nu amee te di nu wërsëgal moo nuy rey moo nuy dekkal ci lu dul sikk gannaaw bu mu nu dekkalee itam dana nu dajale benn bés ci benn barab di nu woo kenn kenn ku ne mu seet la nga daa def bu dee lu baax mu faye la ko àjjana nga tàbbi ca te dootoo ca génn mukk bu dee lu bon mu faye ko ko sawara mu tàbbi ca te dootu ca génn mukk te kenn du ko mën a faj kenn ku ne sa bopp ngay tal muhammadun rasulullahi sayiduna muhammadun jaamub yàllaa tey ndawam lu mu yónni ci bindeef yépp lu mu wax yàllaa ko ko waxloo lu mu def moo ko ko defloo ku ci weddi dara lu tuuti tuuti ab yéefar la ku ci wàññi dara lu tuuti tuuti wala mu yokk ko ci ab saay-saay la bu bon te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm li mu ko yónni nag moo di nanu ko jaamu li nu koy jaamoo itam julli juróom moo ci gën a far julli juróom nag bokk na ci li koy tax a baax ak laab gu mat ci sa yaram ak ci say sër ak ci sa barab bi ngay taxaw di julli xeeti laab itam la ca gën a par moo di sangu farata ci ku mu war mu kallaf mu ne war na bu defee luy waral sangu balaa julli mu sangu ku ko weddi ab yéefar la ku ko bàyyi te tey ko te telewu ko ab saay-saay la bu bon te matul seere ci dara te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm li waral cangaay nag ñeenti yëf la la ca jëkk moo di man yu mu génn te ànd ak bànneex bu mag ba mu baaxoo àndal te mu génne ci buntu awray mu kàllaf mu góor wala mu jigéen ci ay nelaw wala ak yewu kuy nelaw ba yewu gis man yi ci ay cëram te yëgul ba muy génn itam dana sangu te dana baamu julli gu mu julli woon gannaaw bu mu yewwoo kuy nelaw ba yewu gis ay tooy tooy ci yaramam wala ay cëram te wóoru ko man yi la wala déet dana sangu ñaareel ba mu kàllaf mu góor ak mu jigéen bu ñu booloo sangu war na leen ñoom ñaar ñépp bu seen man yu génnee ak bu génnul bu dee ñaari gone sopp nañu ñu sangu bu dee mu kàllaf ak gone mu kàllaf ma sangu war na ko bu dee góor bu dee jigéen nag du ko war bu génnewul man yu gone ga sopp nañu mu sangu ñetteel ba jigéen ju gis baaxam lu dara ja tuuti tuuti sangu war na ko ñeenteel ba ku wëcin doonte doom ja amuli tooy tooy àndul ak dara ci deret itam du tee sangu war na ko ana noo koy defee nag da ngay wut ndox mu sell moo xam ne melowa ak caf ko ga ak xaj ga dara soppi wu ko dara soppi ko wucca nga toog fi barab bu suturlu te laab jublu xibla wax bismillahi raxas sa loxom ndeyjoor ba ca sa tëkku jara ñetti yoon raxas sa loxom càmmoy noonu raxas sobe su taq ci sa yaram raxas sa awra ba mu set te booy raxas sa awra nga wax ci sam xel ne fas na ma yéenee sangu farata ngir yàlla nga jàpp njàppum benn benn loolu moo di cër bu ne nga raxas ko benn yoon waaye bala ngaa raxas say tànk da ngay nekk ba sangu ba noppi nga dellu tooyal sa ñaari loxo teg ko ci sa doq bamb sa kawaru bopp mu wut ci sa jë ba lépp tooy nga raxas sa bopp ñetti yoon te yoon wu ne ne lépp daj nga raxas sa noppum ndeyjoor biir ak biti raxas sa noppum càmmay noonu raxas sa doq ba mu wër raxas sa wetu ndeyjoor dale ko ci sa conco ba ci sa bëtu wóom raxas sa wetu càmmay noonu raxas sa yeelub ndeyjoor ba ci sa waq raxas sa yeelub càmmay noonu raxas sa gannaaw ba mu daj raxas sa dënn raxas sa biir doora raxas sa ñaari tànk ya nga waroon a raxas ca njàpp ma bu dee cangaayul ajjuma nag tànk ya da nga leen di raxasaale ca njàpp ma waaye doo leen mujje cangaayul janaba nag mën naa wuutu cangaayul ajjuma ak njàpp ma lépp suñu ko ca yéenewaalee faratay sangu juróom la la ca jëkk moo di wax ci sam xel ne fas na ma yéenee sangu farata ñaareel ba moo di jokkale cër ya nañu la ko waxe ñetteel ba moo di nga matale mboolem yaram wa akum ndox fenn bañ a def ñeenteel ba moo di nga ragg ko ci sa loxo wala leneen loo ko mën a ragge ndegam mënoo ko ci sa loxo juróomeel ba moo di nga tooyal kawar ga ba ndox ma dugg ko ba der wa mu sax tooy bu baax bu dee ko amee ay létt su létt ya teewul ndox ma mën a dugg kawar ga kon du ko firi bu dee bu tee mu mën koo dugg nag kon dana ko firi te tooyal ko ba ca der wa mu sax sunna ya itam juróom la la ca jëkk moo di jëkk raxas say loxo ba ci sa tëkku jara booy tàmbali ñaareel ba galax ndiku ñetteel ba sarax ndiku ñeenteel ba fiiru juróomeel ba masaa sa bën bëni nopp te bañ a sotti ndox ma ba mu dugg ca loolu baaxul ci ab dégg say poqtaan ak sa ruqi yaram ak ras-ras ya na nga leen toppatoo bu fenn des maa ngi toll ci xëtum juróom-ñeenteel mu kàllaf mu ne war na balaa julli wala mu laal alquran mu jàpp ku ko weddi ab yéefar la ku ko bàyyi te tey ko te telewu ko ab saay-saay la bu bon a bon te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm te kenn du ko mën a faj liñ ko jëm njàpp mi ngi nii la ca jëkk moo di gelawal ñaareel ba xayta ñetteel ba saw ñeenteel ba mas yu moo di ndox mu ratax muy génn ci sàkkara bu yëkkatikoo ngir bànneex bu ndaw buy amee ci xelam ci xalam wala xool wala fo te dana raxas sàkkara sa lépp te dina yéene yëkkati tojum mas yu ma bu sàkkara yëkkatikoo te mas yu génnul kon du ko toj juróomeel ba wat yu moo di ndox mu tal muy génn ci sàkkara ci gannaawum saw ci lu dul bànneex amaana itam mu génn ci lu dul am saw juróom benneel ba man yu mu génn ci lu dul bànneex ngir wopp wala ab coono wala mu génn ci bànneex bu dul ba mu baaxoo niki mu génn ci sababas wokkatu wala ngir segereet lu ci ne su génnee ci sababam dana tojum yàpp waaye su génnee te ànd ak bànneex bu mag ba mu baaxoo àndal nag kon sangu lay waral na ma la ko waxe woon juróom-ñaareel ba tonqi moo di ndox muy génne ci pëyum kuy bëgg wasin bu ko gisee te wasinagul am njàppam toj na bu wasinee nag sangu war na ko fa saasa bu amul deret bu ko amee nag bu dogee lay sangu juróom-ñetteel ba soy nekki ku jinne sadd juróom-ñeenteel ba xëm fukkeel ba màndi fukkeel ba ak benn nelaw yu diis lu tuuti tuuti yooyu nelaw nag moo di yoo xam ne su boroom yoroon dara ci loxoom mu rot te du ko yëg wala muy yut fukkeel ba ak ñaar mu kàllaf mu góor mu laal yaramu jigéen wala kawaram wala wexam wala ay sërëm te laal ga mu jublu ca bànneex su ko ca amee ak su ko ca amul te jigéen ji itam di ku mënee sa bànneexu ci moom bañ di gone ba mu ëpp wala mu am ca bànneex te jubluwu ko ca woon bu ko ca jubluwul te am ko ca nag kon du dara mu kàllaf mu góor ak mu jigéen nag ñoo yem ci laal ko wala mu laal la ñaari gone nag seenu laalante du dara fukkeel ba ak ñett mu kàllaf mu góor ak mu jigéen ku ca fóon moroomam fóonub gémmiñ suñ ca amee bànneex ak suñu ko ca amul ak suñu ko ca jubloo ak suñu ko ca jubluwul seenu njàpp toj na bu dee mu kàllaf ak gone mu kàllaf ma am njàppam toj na gone ga am njàppam tojul bu dee ñaari gone itam du dara fóonub bakkan nag moog laal ñoo yem fóon gone ngir yërëm ko itam tojul am njàpp fóon sa waajur wala sa kilifa wala sa mbokk mu mu jege ngir màggal ko ak yërëm ko itam du toj am njàpp góor ak jigéen fukkeel ba ak ñeent mu kàllaf mu laal sàkkaraam ci biiri tënkam wala ca pegg ba wala ca biiri baaraamam wala ca pegg ya bu ko laalee ci kaw ay sërëm nag du ko toj bu laalee awraam judul sàkkaraam itam du ko toj jigéen ju laal pëyam nag ak nu mu ko mën a laale itam du toj am njàppam doonte lunkal na baaraamam itam fukkeel ba ak juróom moo di mu sikk ne njàpp ma wala déet wala mu sikk njàpp ma ak toj ma lu ca jiitu wala sax mu xam ne jàpp na waaye sikk na njàpp ma toj na wala déet lu mu doon ci yooyu bu dee ba mu julleegul na jàppaat door a julli bu dee ca biir julli ga nag te sikk sa dañul na dog julli ga te jàpp te julliwaat bu dañee nag dara waru ko bu dee gannaaw mu jullee itam dara waru ko li feek wóoru ko ne toj la woon na waaye bu ko wóoree ne bu ko wóoree ne toj la woon na nag na jàpp te julliwaat ba faw siw nag moo di boo sawee wala nga dox aajo ba noppi nga wut ndox mu sell moo xam ne melawa ak caf ko ga ak xaj ga dara soppi ku wucca nga raxas ca sa awra bala ca génne woon set wicc bala ngaa génne fa nga ko doon defe loolu nag la ca gën moo di nga yóbbaale ndox ma fa nga koy defee foofa nag bu dee wa nag sopp nañu boo fay dugg nga jiital sa tànku càmmoy te bala ngaa dugg nga wax bismillahi allahumma inniya ausu bika min al xubusi wal xabaisi waaye boo duggee ba ci biir nag dootoo ko wax booy génn nga jiital sa tànkum ndeyjoor wax bismillahi alhamdulillahi allazi ashaba anil asa wa aafani bu dee ab àll nag bala ngaa wuññi sa awra nga koy wax ak boo noppee ba mu wet ko waaye boo doxee yooyu ba noppi door faa jóge di wuti am ndox kon xëy na du ñàkk lu la taq ca soda sa te doo ko seetlu te boo ko dindiwul sa julli du baax loolu moo tax siw mat nay farlu bu baax bala ngaa siw na la wóor ne saw ma jeex na nga bës ko ratt ko ba mu set wicc nga door koo raxas góor ñi nag yemoowuñu ci farlu am na ñoo xam ne war nañoo dox ay jéego jekki ab biir door a siw ngir siw ba noppi am saw di génne ci yow te xëy na gaawtu rek moo la ko teg baaxul bokk na ci yi ñuy dóore nit ci bàmmeelam boo siwee ba noppi nag nga door a jàpp ana noo koy defe nag da ngay wut ndox mu sell mi ma la wax nga toog fi barab bu laab jublu xibla wax bismillahi soccu galax ndiku raxas sa loxob ndeyjoor ba ca sa tëkku jara ñetti yoon raxas sa loxob càmmoy noonu galax ndiku ñetti yoon sarax ndiku ñetti yoon te yoon wu ne na nga fiiru sëlmu ñetti yoon te booy sëlmu nga wax ci sam xel ne fas na ma yéenee def faratay jàpp ngir yàlla raxas sa xasabub ndeyjoor ba ca sa conc ñetti yoon raxas sa xasabub càmmoy noonu masaa sa bopp dale ko ci sab jë ba ca sa dox delloo siwaat ko ba ci sab jë benn yoon masaa say nopp raxas sa tànkum ndeyjoor ba ca sa waq ñetti yoon raxas sa tànkub càmmoñ noonu mu jeex nga xool asamaan wax lii ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayidana muhammadan sallallahu taala alayhi wa sallama abduhu wa rasuluhu allahumma ijcalna min altawaabina واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين وأدخلنا في الجنة وبعدنا من النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم دال دي دم جولي فراتاي جاب جوروم ñett la la ca jëkk moo di booy raxas sa kanam nga wax ci sam xel ne fas na ma yéenee def faratay jàpp ngir yàlla ñaareel ba moo di raxas sa kanam ba mu daj ñetteel ba moo di raxas say loxo ba ca say conco ñeenteel ba moo di teqale xar-xari baaraam ya juróomeel ba moo di masaa mbooleem sa kawaru bopp lu mu gudd gudd bu dee borom mi létt nag bu léttee doonee kawaru kese du ko firi lu mu tal-tal bu ca léttaalee leneen nag kon dana ko firi bu baree ba ndox ma dugg ko jokk kawar sax bon na lool lii nag jàpp tax ñuy wax waaye kuy sangu farata bu létt ya talee ba tee ndox ma mën a dugg kawar ga kon dana ko firi kawaru kese ak li ak bu ñu ko raxee nag ñooyam ci loolu juróom benneel ba moo di raxas say tànk ba ca say dujur toppatoo xóot xóot ya ak ras-ras ya ak diggante ya baaraam ya juróom ñaareel ba moo di cër booy raxas nga ragg ko te bañ a bari ndox ma juróom ñetteel ba moo di jokkale cër ya nañu la ko waxe boo raggee ab cër bàyyi ba mu fendi nga door a ragaat beneen kon sam njàpp yàqu na boo ko fàttee te fàttaliku ko te njàpp ma fendi kon da ngay def la nga fàtte woon rek yem ca bu fendee gul nët kon da ngay def la nga fàtte te baamu cër ya ca war a tegee ba njàpp ma àggaat sunna ya itam juróom-ñett la la ca jëkk moo di raxas say loxo ba ca sa tëkku jara booy tàmbali ñaareel ba galax ndiku ñetteel ba sarax ndiku ñeenteel ba fiiru juróomeel ba masaa say nopp biir ak biti juróom benneel ba moo di bala ngaa masaa say nopp nga tooyalaat say loxo tooyal bu yees juróom ñaareel ba moo di boo masaa sa bopp ba ca sa doq nga delloo siwaat say loxo ba ca sa jë juróom ñetteel ba moo di toftale cëri farata ya bañ caa jiital benn bu mujj moroomam jàpp nag sopp nañu ko ngir jàng alxuraan wala hadis wala xam-xam wala tudd yàlla wala siyaara ku baax wala dem ci ab ja wala ngir nelaw sopp nañu itam ku ko saxoo nga xam ne ku sam njàpp tojee rek nga jàppaat loolu nag la ca gën moo di ku koy def njàpp moo jàpp nga fas ci yéene njàppam faratay julli boo ko defee da nga ca mën a julli farata da nga ca mën a def sunna su la neex waaye boo jàppee ngir lu ñu sopp rek nag doo ca mën a julli farata sopp nañu itam boo jàppee ngir julli farata boo ca jullee farata wala nga naafila ca wala nga wër ca kaaba su jeneen farata ñëwee nga yeesalaat ko du lu war sax waaye sopp nañu ko boo ca laalee alquran rek nag du tax nga yeesal suñu socc itam sopp nañu ko lool ku ko man bala ngaa julli nga socc ku ko mënul itam nga di ko faral a def ngir dana bégloo yàlla di merloo seytaane dana fàttali tudd yàlla ci waxtu dee dana tax a deeyaale gëm dana bégloo ñaari malaaka yi taxoog yow saa su ne dana wàññi mitiitu dee dana dolli wërsëg dana dolli am xel dana dolli ab gis dana tax a mën a wax dana reesal aw ñam dana dëgëral am siiñ dana setal gémmiñ dana rafetal kawar dana tax a yeex a màggat noo ngi toll ci xëtum fukk ak ñeent tiim nag ku bëgg a julli wala mu bëgg a jàng alquran wala mu laal ko wala mu bind ko wala lu ni demee bu amul ndox mu mu jàppe wala mu mu sangoo kon dana ko sañ ndegam amewulum njàpp wala cangaay war ko waaye bala koo sañ da koy wut kem kàttanam mel ni bu maroon bay bëgg a dee na mu koy wute ngir naan mu wute ko na ngir laab bu ko amul mu door a tiim ca bopp waxtu wa bu ko naagoo bu ko nattablee mu tiim ca digg waxtu wa bu ko yaakaaree mu tiim ca mujj waxtu wa waaye daganul mu yeexe waxtu ngir dara bu amee wopp juy bañum ndox mu tàngal ko wala mu xorom ko bu ko yaramam nanguwul ci genn anam te mu wóor ko ci lu dul njort kon it mu sañ ko waaye ku tiim ci lu dul sart yii te tey ko ab saay-saay la bu bon te ab julleem baaxul te fay ko war na ko te matul yilimaan matul seere ci dara te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm ana noo koy defe nag boo dee tiim ngir julli da ngay nekk ba waxtu wa tàbbi nga wut pàkkub suuf bu laab wala doj wu yaatu te bañ bi simoŋ mbaa laso mbaa karo nga teg ca say tënk bës ko ca bu dër tàllal say baaraam te tàppe leen nga yëkkati sa loxo yooyu bomb ko ci sa kanam ba mu daj fenn bañ a des te nga jëkk bomb sa loxo ndeyjoor te booy bomb say loxo ci sa kanam bu ca suuf taqee bu ko fëgg bu ko faxas da nga koy bombaale bu baax ba mu taq ca te da ngay wax ci sam xel ne fas na ma yéenee daganlu ak julli ci toj mu mag mii bu la sangaay waree wala nga ne ci toj mu ndaw mii bu la am njàpp waree nga tagaat say tënk fi suuf bës ko bu dër tàllal say baaraam te bañ leen a tàppe xaw leen a teqale tuuti nga yëkkati say loxo teg sa bitib loxol ndeyjoor ci sa biir loxol càmmoy dale ko ca cati baaraam yépp bomb ko ba ca sa conco wëlbati sa loxob càmmoy fab tënk la bomb ko ci sa biir xasabub ndeyjoor dale ko ci sa conco ba ca sa tëkku jara teg sa biir baaraamu dëyub càmmoy ci sa kaw baaraamu dëyub ndeyjoor bomb ko ca sa loxob càmmoy nga def ko noonu moom itam masaa say tënk masaa sa diggante baaraam yépp bomb leen ku tiim ngir jullit farata du ca sañi julli lu dul jenn farata waaye mën na caa teg naafila wala jàng alquran wala lu ko neex su ko ca yéene waalee waaye farata ju ne ak tiimu boppam ku ñàkkum ndox te woppul te nekkul ci ab dox du sañ a tiim ngir jullee ku faatu ndare du dafa gisul ku ko man du sañ a tiimit ngir naafila gu jokkuwul ci farata ku tiim ngir jàng alquran wala lu ni gane itam da koy fasaale wax cim xelam ne fas na ma yéenee daganlu nangam daldi ko cay jokk bu gaaw bu ko yeexee tiim ba yàqu na faratay tiim juróom ñett la la ca jëkk moo di wax ci sam xel ne fas na ma yéenee dagan lu julli wala nangam ñaareel ba moo di teg say loxo fi suuf bu jëkk ñetteel ba moo di matale xar kanam bépp ñeenteel ba moo di matale say loxo ba ca say takku jara juróomeel ba moo di pàkk bu laab juróom benneel ba moo di jokkale cër ya cër boo masaa ba nga cay teg nga bañ koo yeexe boo ko yeexee tiim ba yàqu juróom ñaareel ba moo di lala tax ji tiim nga bañ koo yeexe boo ko yeexee tiim ba yàqu juróom ñe juróom ñetteel ba moo di nga nekk ba waxtu wa tàbbi bu ko jiitoo lu néew néew julli ga du baax sunna yee itam ñeent la la ca jëkk moo di toftale defin wa bu ko safaanee na ko baamu ñaareel ba moo di tollantik sa loxo ya nga tegoon ci suuf ñetteel ba moo di masaa la dale ci sa tëkku jara ñeenteel ba moo di bañ a faxas pënd ba te masaa waale ko ca kaw la ngay masaa war na mu kàllaf mu ne bu sobe taqee ci yaramam wala ay sërëm wala barab ba muy jullee mu raxas ko su xamee fa mu ko taq bu sikkee taq na ko am déet nag kon bu dee ci ay sërëm wala lal ga muy jullee na ko wés bu dee ci yaramam mu raxas ko bu ko dara taqee te xamul sobelaam déet nag dara waru ko ca kuy raxas barab ci suuf ngir sobe kon bu sobe sa dee am ndox da nga cay sotti ndox mu bari ba mu ëpp ko doole bu sobe sa dul am ndox nag faaw nga dindi jëmmi sobe sa am ndox bu nekkee ci ndab te bariwul toll ci ñaari liitar wala lu ko gën a néew su ca ab dawkat xabee sib nañu kuy laabe la ca des te sopp nañu ku ko tuur sañees na koo jëfandikoo ci aada sax te bañ koo laabe waaye tuur ko moo gën sopp nañu itam mu raxas ndab la juróom ñaari yoon bala caa defaat dara waaye da koy raxas rek du ca bomb suuf su ca dugalee làmmiñ wa te yëngalu ko ci kon waxuñu ko wala mu yut ca wala mu mar xottu ndab la te dara ñëw ca itam waxuñu ko su ca aw ñam nekkee itam lu mu royu royu doonte am soow la itam waxuñu ko am ndox rek lañu wax te muy mu bariwul bu ëppee ñaari liitar itam waxuñu ko am ndox bu nekkee fi barab te du ndox muy daw xanaa deme ni ab déeg wala ab deq wala ab seterne wala bañwaar bu ca borom bakkan bu am deret tàbbee ba dee ca te soppiwu ko sopp nañu ko as ca ndox ma tóor ba yaakaar ne la ca génne woon dañ na loolu nag mi ngi takku ci kem rëyug loola akuk tuutam ak bari ndox ma akuk néewam ndox muy daw nag wala muy nacc niki ab teen bu ko soppiwul deesu ko as deesu ko walu bu ko soppee nag faaw ñu walu ko bu soppi ku ko ba soppi ku ko deñ bu ca tabbee te deewul ca biir nag waxuñu ko bu dee ba noppi door caa tabbi itam waxuñu ko li feeg soppiwu ko rek noo ngi toll ci xëtum fukk ak juróom-ñaar aw ñam nag bu ca sobe tàbbee te muy lu royu deme ni am soow wala laax wala diw gu royu kon lu sobe sa néew néew ak lu ñam wa bari bari des koy wacc bu royuwul nag kon bu ca sobe sa yàggul ba mën a royaat ba dugg ko kon dañuy tonni sobe sa ak la ko jige tuur ko bu ca yàggee ba mën caa royaat nag kon faaw ñu tuur lépp koo xam ne dafa xuriku wala mu gaañu wala mu taab wala mu ame góom kon buy jàpp wala muy sangu ba ëkk ca cër ba góom ba nekk bu ko mënula raxas ngirug metteem wala mu ragal ca lor kon da koy masaa te cër ya ca des mu raxas leen bu mënula masaa yaramu góom ba itam kon mu masaa ca kaw ñagas ñagas ya bu mënul loola itam kon mu laxas ca aw sekkiit te masaa ca kaw sekkiit wa bu bu wenn doyul mu def ko ñaar bu ko mënul ci genn anam nag mu jàpp wala mu sangu te bàyyi ko ku wàññen ba mënula raxas ay bëtam ngirug metti wala mu ragal ca lor kon da koy masaa bu mënula masaa ca kaw bët yëpp wala ca kaw jëba itam kon mu ŋaaw ci aw sekkiit te masaa ca kaw sekkiit wa bu wenn doyul mu def ko ñaar bu ko mënul ci genn anam mu bàyyi ko te ragg cër ya ca des bu ca laxasee aw sekkiit ba masaa ko bu sekkiit wa rotee wala mu dindi ko ngir dara wala mu dindi ko ngir dara na ko ca gaaw a delloo te masaawaat ko wala bu ko yeexee njàpp ma yàqu na baaxub jigéen deret lay doon di génn ci payum ku am juróom-ñeenti at te aggul ci juróom-ñaar fukki at muy génn nag ci lu dul senn sabab jigéen ñi nag ñetti xeet lañu ci ku koy door a tàmbali nga xam ne mësu koo gis ak ku ko daa gis ba xam na mu ko daa gisee ak ku ëmb ku koy door a tàmbali gën jaa yàggu génnu deret ja ci moom fukki fan ak juróom lay doon bu ko matee te dogul dootul dereti baaxub jigéen dereti jàngoro la na sangu te julli te woor te booloo bu dogee te dellusi te diggante bi matul fukki fan ak juróom na boole bés yi mu ko gise ba ba muy mat fukki fan ak juróom bu ko weesoo mu xam ne jàngoro la mu sangu te julli te woor te booloo bés yi mu ko gisul na sangu te julli te woor te booloo bu matee fukki fan ak juróom nag kon du dereti jàngoro dereti baaxub jigéen la ngir fukki fan ak juróom mooy dayub gën jaa ñeewi laabug jigéen ju ne laab gu ko yées lañuy wax jàngoro la ak déet waaye laab go gu ko xis mat du jàngoro lu feeñati rek baax la ku ko daa gis ba xam na mu ko baaxoo gise nag bu deret ja weesoo fa mu ko daa fa mu daa doge te dogul na muñandiku ñetti fan bu dogul mu sangu te julli te woor te booloo waaye muñandiku gi ñetti fan nag ci kaw mu bañ a weesu fukki fan ak juróom ku baaxam di fukki fan ak ñaar mbaa la ko gën a néew mooy muñandiku ñetti fan teg ci baaxam ku baaxam di fukki fan ak ñett ñaari fan lay teg ci baaxam su dogee ak su dogul mu sangu te julli te woor te booloo ku baaxoo fukki fan ak ñeent benn bés la cay teg su dogul naka noonu ku baaxoo fukki fan ak juróom nag bu deret ja dogul du mu ñu ni ku dara ngir booba jàngoro la na sangu te julli te woor te booloo ku ëmb itam néew na lu mu koy gisee bu ko dee gis itam néew na bu mu ko gisee te ëmb ba matul ñaari weer bu matee ñaari weer ba ba muy mat juróom benn weer bu ko fa gisee ngën jaa yàggam nittu fan lay doon bu ko matee te dogul na sangu te julli te woor te booloo bu dogee te dellusi te diggante bi matul fukki fan ak juróom kon day boole bés yi mu dellusee ba ba muy mat nittu fan bu ko bu ko matee te dogul mu xam ne jàngoro la mu sangu te julli te woor te booloo bés yi mu ko gisul itam na sangu te julli te woor te booloo bu ëmb ba matee juróom benni weer ba ba muy wësin bu ko fi gisee ngën jaa yàggam fanweeri bés lay doon bu ko matee te dogul mu xam ne jàngoro la mu sangu te julli te woor te booloo bu dogee te dellusi te diggante bi matul fukki fan ak juróom na boole bés yi mu ko gisee ba mu mat fanweeri bés bu dogul mu xam ne jàngoro la mu sangu te julli te woor te booloo bés yi mu ko gisul na sangu te julli te woor te booloo ku amee baaxub jigéen nag li muy xame ne deret ja dog na ñaari yëf lay doon benn mu def aw sekkiit wala dëru wateen ca pëy ma ba mu yàgg ca mu génne ko te deret ji yees taqu ca doonte dafa tooy ci lu dul deret itam du tee booba dog na ñaareel ba ndox mu weex mu mel ni maniyu bu génnee ca pëy ma kon deret ja dog na ku baaxoo gis ndox mu weex ma nag nga xam ne balaa pëy ma balaa pëy ma fendi ci deret ndox ma génn kon saa fi gisee ndox ma bu mu nekk fendi ga na daldi sangu te julli ku baaxoo pëy ma jëkk fendi ba noppi mu door a gis ndox ma itam su jëkkee gis ndox ma bu mu nekk ak fendi na sangu moom it bu jëkkee gis fendi ga nag na muñandiku ba xam ndox ma dana génn wala déet bu génnee mu sangu bu génnul mu nekk ba waxtu wa mu nekk mu dem ca mujj muxtaar ma bu génnee ak bu génnul mu sangu te julli bu sangoo ba noppi mu door a génn itam du baamu cangaay la ndegam muñandiku wën na ko ba ca mujj muxtaar ma bu sangoo njëkk mujj muxtaar ma nag bu génnee gannaaw bu mu sangoo kon dana sanguwaat te julliwaat ku baaxoo gis pëy mu fend rek nag te du gis ndox mu weex ma kon saa su pëy ma fendee bu mu nekk ndox ma na daldi sangu kuy door a tàmbali nag nga xam ne xamul luy baaxam moom fend ga ak ndox ma lu mu ci jëkk a gis bu mu nekk la ca def na daldi sangu te julli ku amee baaxub jigéen nag du julli te du ko fay du woor waaye dana ko fay du wër kaaba du ñax ci kaaf du booloo deesu ko fase deesu fow ak moom wala ñuy bànneexu ci moom ci li dale ci ab dungu xam ba ci ñaari bëti wóomam du tàbbi jàkka du laal alquran bu dul ku koy xamlu wala mu di ko xamle kon mu sañ ko waaye dana saña tari su xamluwul xamle wulit waaye yi ci des yépp du ca sañ dara te du deret ja dafa dog ba mu sangu bu dogee te sangoo gulit du tax mu sañ ci dara dootu sañ a jàng alquran wala mu laal ko ci genn anam war na ko amee baaxub jigéen waxtu wu mu tàbbi mu seet ba xam deret ja dog na wala déet bu dogee gannaaw fajar te mu mën a sangu julli benn rakka jant door a fenk kon suba war na ko bu fa xajul nit du ko war bu dogee njëkk jant bu so te mu mën a sangu julli juróomi rakka jant door a so kon tisbaar ak takkusaan war na ko bu fa dara xajul gannaaw bu mu sangoo lu dul ñeenti rakka wala lu ko yées nag kon takkusaan rek a koy war bu dogee jëkk fajar te mu mën a sangu julli ñeenti rakka fajar door a dikk kon timis ak gee war na ko bu fa dara xajul gannaaw bu mu sangoo lu dul ñetti rakka mbaa lu ko yées nag kon gee rek a koy war war na itam mu xam waxtu wa mu ko dal bu ko dalee gannaaw fajar te mu mën a julli benn rakka ci lu dul laab jant door a penk kon suba waru ko bu ko dalee jëkk jant bu so te mu mën a julli juróomi rakka ci lu dul laab kon tisbaar ak tàkkusaan dara waru ko ca bu fa dara xajul lu dul ñeenti rakkaa wala lu ko yées nag kon tàkkusaan waru ko waaye tisbaar war na ko bu ko dalee jëkk fajar te ñeentu rakkaa xaj fa kon timis ak gee waru ko bu fa ñetti rakkaa rek xajee wala lu ko yées nag kon gee waru ko waaye timis war na ko waaye buy woor na koy seet jëkk fajar bu dogee jiitu fajar na woor bu maasee fajar dana woor bu ko fajar jëkkee du woor bu sikkee moog fajar lu ca jiitu dana jàpp booba bés te dana ko fayit ku wasin deret dana génne ci pëyam ànd ak doom ja wala doom ja jiitu ko waaye du jiitu doom ja deret du jiitu doom lu jiitu ga tuuti tuuti du dereti wasin dereti ja baaxub jigéen la dereti wasin nag gën jaa yàggu génnam juróom benn fukki bés lay doon bu ko weesoo dootul dereti wesin dereti jàngoro la na sangu te julli te woor te booloo noo ngi yem fii ci bandub bu jëkk bi xëtum ñaar fukk ak benn di séentu bandub ñaareel bi insha allahu